Soutenons la Dara d'Oustaz Alioune en envoyant Ali Imran au 26 26 1. Ali Imran au 26 26 1. Recevez chaque vendredi un hadith, un conseil ou bientôt des leçons de pour le coût de 300 francs. Soutenir la Dara parce que chaque geste compte.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 ñoo ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel almisbaax ña ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew kulim juum léeg nga dajeeg nit mu ne la maa ngi bàyyi xel almisbaax mu nekk ab soññee lool ndax danga lele léeg sax ma ne la su ma xamoon ne yaa ngi may bàyyi xel ma gën a góor góorlu yàlla xam na ne noonu rek la deme ndax daa am koo xam ne bu ngeen bokkoon ab jotaay bala ngaa yëkkati kàddu di nga ko waajaat ndax cërub kilik kilifteef gi mu am ci yow da koy waral am koo xam ne bu ngeen ko bokkoon bala nga koo jël danga ko waajaat ndax cërug doon sa kilifa ci xam-xam bi mu am foo ko takk weesu na ko am koo xam ne bala nga koo waaj jël da ko waajaat ndax cërub mageel gi muy am ci yow day tax yooyu yëpp bu dajee sa mën naa judd tey nag ay kiiraay kiiraayi kiiraay mën a dox ci suñuy diggante ba jëmm yi duñ gisante ci bët waaye kàddu di dugg ci ay nopp noppi sang di dugg ci noppi ay gor di dugg ci noppi ay nit ñu baax ñu yiw ñoo xam ne loo tàmbali mën nañ koo àggale waaye ndeysaan ñu sukk ne groupe yor seen kurus di déyanteeg seen borom subhanahu wa taala léeg-léeg sax déyante direct lay doon ma wax la ko nag waaw ndax am na ñoo xam ne fëgge nañ bunt yàlla nu ne ba bunt ba ubbeeku na ci ñoom waaw loolu lañuy ñuy wax al ijaaba am nañ ko waaw ñu du la déglu xam nga nopp yooyu dugal ci lu sedd xolub kooku donc mooy li jige <laughs> mooy li jigéen moo tax ñoo ngi leen di jéggalu lu ciy joonu jóonu ñoo ngi leen koy jéggalu waaye nag di sàkku ci yéen ñaan bu baax a baax a baax ñoo ngi sàkku ci mboolem kuy bàyyi xel almisbah mu ñaanal ñu mucc waaw yàlla nañ mucc ngeen mucc waaw mucc daal lu jafe la waaye ku ko yàlla defal da ko def yàlla nañ ko bokk def waaw mucc yonent bi alayhi salaatu wasalaam daa wax xadis boo xam ne léeg nit war koo seetantal ba mu yàgg mu tiidloo ko yàlla xam na ko nit ki dana góorgóorlu di def lu baax di góorgóorlu di def lu baax di góor góorlu def lu baax ba digganteem ak aljanna tollut ne li tàmbulee ci sa concali ba sa cati baaraam yi mu daal di tàmbulee def safaan ba daal cay faatu dugg sawara nit dana góor sàggan ne ca safaan ba ne ca safaan ba ba digganteem ak sawara tol noonu mu góor góorlu def lu baax daal di cay dugg ca xéewal ya mu mel ne kon mucc lu jafe la te nag li gën ci mbir yi mooy mujj gi li gën ci mbir yi mooy mujj gi moo tax mbokk yi nañ gën a teey nag nañ gën a teey tuuti léeg nga gis koo xamante ne danga koy jàppe ne ku xaw a doy waar la ci waxin léeg-léeg ñu ne ku saayire la ni muy solo léeg ni muy waxe léeg mu sàggane yu baax yi ba tax sax nit mën koo dëkkale fu mu dëkkut ñu dem tuuti ab diir gis kee soppeeku ba nga xam ne kuy lim ñu baax ñi boole ko ci gis kii sàggan lool ba yéem la waaw gis ki sàggan lool ba càggan gi yéem la moo tax man daal mbir yi mbir yu doy waar la mbir yu jara teey la waaw mbir yu jara teey la doomu aadama bi daal léeg-léeg àtte digganteem ak nit ñi da koy tardeel <laughs> àtte nit ñi nit ñi nga jàpp di leen àttee ka xool ak lañ bat mën naa tardeel nit de yàlla xam na ko mën naa tardeel nit <laughs> nekk ci nit ñi rek yow gaa julli nga yaa ngi julli bu waxtu yu jotee nga jóg julli ji waaye ñi julli wut mu ñooy sa occupation ci ñoom nga nekk di leen àttee ka siisee ka tëj rek dugal sa waraaka génnee mën naa tardeel nit ku yàlla nattu nag ba nga yor kàddu fàttali del fàttali li aju ci jaamu yàlla yépp ak a soññi nit ñi ci ak njub waaye nag boo xëyee xëy ca <laughs> boo xëyee xëy ca loolu laay wax ne ñaan ga niñ koy ñaanalaatee noonu lañ koy sàkkoo ci ñun ndax am na koo xam ne moom mën naa soññee lu baax lool waaye taxaw taxawaayu baax jafe na ko lool yàlla nañ ci yàlla musal nga xam ne defar nañu bari waaye moom ba léegi defaroogut xam nga ne loolu baaxut waaw loolu moom toskare la daal yàlla nañ ci yàlla musal koo xam ne defar nga ñu baree baree baree baree bari waaye yow moom defaroogoo yaa ngi toog ci kër gi nit ñi nag ña ngay dem yaa nga naan ay ca ay ca ay ca ay ca nit ñi di la romb di daw di dem nga tëdd di nelaw gis nga bu ñu àggee duñ la fa fekk te boo jugut doo leen fa fekk <laughs> te boo jugut doo leen fa fekk moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam lu mu mas a digal nit ñi moo ci jiitu lu mu mas a digal nit ñi rek bu ñu xoolee moo ca man ñëpp mësta wax dem leen daal di toog moom waaye na naan nañ dem wala bu naan dem leen ku siggi seen ko ca kanam loolu uh, uh, mooy mooy mooy pëstéef te it mooy tax a jariñu dañ la koy misaalal ne la ki nga xam ne dafa ràbb ak mboolaan te wutiwut aw gub ca tool yee ñëw mboolu du yëy waaw du yëy ki nga xam ne dafa raw ab gojam ba goj bi dëgër te di mut ca teen ba jukkim ndox ndax juugub goj ci kër gi toog di ko xool rek dana tax a naan fajutu mar kon day dem eh, rooti misaaloon naa ko fi médecin bi dàq faj ki dàq faj ci senegal docteur Anadia su tawatoon te demut jël garab yay faj bopp buy metti naan ko bopp ba du gaaw a sedd donte nag xam na garab yi faj yépp ku feebar moo lay faj moo tax mbir yi dafa am nu mu tegoo borom bi sax posé nañu ci ab question lu tax ngeen di digal nit ñi lu baax ba noppi fàtte seen bopp wala yéen da ngeen yaakaar ne bokku leen ci <laughs> du ngeen am xel du ngeen am xel am leen lu am leen xel bokk loolu ma ngi ko doon wax yahuud ya waaye ku ne mën na cee dégg sa bopp ku ne mën na cee dégg sa bopp nee nañ yowmal xiyaam danañ gis boroom xam bu ñëw dugg biir sawara malaaka yi jam koy xeej biir bi tuuru butit yi wër ko mu jaaxle lool waaw di xiin xiin yi ba di xonq coy yu muy jooy ndeysaan am ñu siggi xool ko ña nekk aljanna seen ko wala ñam nekkandool ca musiba ma yàlla nañ ci mucc ngeen mucc ci ne waaw xanaa kii du diw laa ilaaha illallaah yow nga xam ne mos yaa ñu daan gindi ci sa waxtaan yi lañ daan jube yaa ñu doon orienté yaa ñu def nangam ak nangam nga mujj fii mu ne leen waaw man la de <laughs> jaawale leen ma de fii amul jaawale ku ngeen ko teg rek kookaa ñu ne ah lu waral loolu ah yàlla nag ay mbiram jaaxle na mun leen deful dara de man maa daan digal nit ñi lu baax te duma ca nekk di tere nit ñi safaan bi ba noppi di ca nekk loolaa ma indi lii yal nañu ci yàlla musal olof yi dañ koy faral di léeb naan la bul mel ne leeraayu sondeel sondeel mi ngi lay leeralal yow waaye mi ngi lakk boppam mi ngi lakk boppam day sacrifier boppam ba lakk ba jeex takk ngir leeral la doonal koo xam ne nag da góor góorgóorlu ca loola te nekk ca waaw da góor góorgóorlu ci ak njub te nekk ci ak njub loolu mooy li nga xam ne mooy tax a jub yal nañ ko yàlla defal te defal leen ko yal nañ mucc ngeen mucc yal nañ am mujj gu rafet yal nañ am mujj gu rafet waaw yal nañ am mujj gu rafet moo tax. ñaan ko borom bi ak góor-góorlu ca dana ko tax a am yal nañ ko am gannaaw koo xam ne bu laa ilaha laa mujjee ci saw làmmiñ nga dugg aljanna yal na yomb ci ñun suñu làmmiñ tàmm ko ba bu dara daanoo ñu tudd yàlla bañ a saaga suñu làmmiñ tàmm ko bañ bàyyi xel suñu borom dëgg dëgg bàyyi xel waaw bu boobaa dana doon suñu wéttal woo xam ne dañ koy yëg bi ko làmb di ko daj di ko dund di ko dund xam nga léeg it ne man nangam laay dund waaye nag nañu dund yàlla nag nañu dund yàlla te jàmmalante ci suñ biir jàmmalante ci suñ biir surtout ci deri gor ñi dana tax a mucc xam nga doomu aadama léeg-léeg nga foogee ko ku sàggan te waxtu yi nga koy gis waxtu yi nga ko gisut ko ëpp maanaam waxtu yi nga nekk moom waxtu yi nga nekkut moom da koo ëpp te bi nga nekkut ak moom xamoo ci lu mu nekk te bi nga nekkee moom it umpule nga ko ci lu bari ndax doomu aadama rek moo xam boppam balil insaanu ala nafsihi basira loolu la ko yàlla wax nit daal moo xam boppam waaw ku nag xam nga sa bopp ku ne xam nga sa bopp moo tax buñ dellusee ca suñu ndénkaan ya agsi woon ci ñetteelu ndénkaanu luqmaan jàpp ñeenteel bi ndax ndénkaan lu njëkk la daa waxoon borom daa waxoon doomam ja ne ko laa tusrik billah mhm. yaa bunay laa tusrik billah bul bokkaale yàlla ndax bokkaale ak tooñ la bu ñaareel bi te doomu aadama war koo jël mooy dénk giñ ko dénk ay way juróom wassaynal insaana bi waalidayhi ñoo ngi lay dénk yow nit sa ay way jur bu ñetteel bi ñu dénk ko moom ci boppam boppam te luqmaan ne ko yaa bu nay innaha in taku mitqaala xabba xabbatin min xardal fa takun fi saxratin aw fi samaawaati aw fi l ardi yati biha allah inna allaha latifun xabir allahu akbar ndénkaane ñeenteel bi mu delloowaat luqmaan delloowaat doomam ca suñ borom subhaanahu wa taala ne ko yaa bu nay sama doom taxawalal julli del julli fi haadihi wasiya luqmaan mi ngi ci orienté doomam ilaa adaaxil ibaadaat jëmale ko ci muy taxawe jaamu yàlla yi di jëfe ak topp borom bi subhaanahu wa taala waxtas sa salaat duuna saairil ibaadaat mu jagleel ko julli julli gi yóbbaale mboolem jaamu yàlla yi ndax xam nga julli julli mooy jaamu yàlla gi nga xam ne dafa matale xeeti jaamu yàlla yépp nekk ci biir noonu lañ koy faral di waxe aji julli ji nga xam ne mi ngi topp boroomam xam nga ne julli jaamu yàlla nga topp yàlla ndigal ya da caa jiitu koor ne ci biir aj nekk ci biir rafetal nekk ci biir li tekki aj gi mooy ki nga xam ne day julli mi ngi jublu baytan min buyutillah mi ngi jublu néeg ci néegi borom bi subhaanahu wa taala muy kaabatullahil musarraf ki nga xam ne day julli du lekk ci biir julli gi du naan ci biir julli gi jëf yi nga xam ne moom lay def xarakaat yooyu yëngutu yi li tax mu di ko def mooy ngir mu sellalal ko bakkanam ngir mu sellalal ko bakkanam kon julli lu ama am solo la moo tax luqmaan wax doom ji ne ko yaa bu ne aqmi salaa mbokk yi lu ñu déggee ci loolu mooy luqmaan ki yilif moom digal na ko julli ndax ñun ñi ñu yilif ñoo ngi leen di diggal julli wala déet ndax ñi ngi koy soññee léeg nga gis koo xam ne moom fonk na julli lool waaye soxnaam julli ak bañ a du problème am léeg gis koo xam ne fonk na julli lool waaye ay doomam julli ak ay doomam bañ julli du problème am déranger wu ko léeg nga gis kilifa goo xam ne barab bi mu jiitee nit ñi di fa liggéeyee moom fonk na julli lool waaye ña fa nekk di julli ak ñu bañ a julli du problème am déedéet kilifa mooy jur rekk ci fànn yépp daa bokk ci yim amal doomam dénkaan yi Luqmaan di dénk doomam gis nga ëllëg wax nañ ne nit danañ ko àtteel ay jëfam mu waaxu war a dem dugg aljanna njabootam laxasu ci tànkam ne yàlla ñun buñ ñëwee ci àdduna yàlla ak diw mii la bu ñëwee ci àdduna yaa ngi ko jaarale ci diw mii moom nag mosuñoo tegtal dara lu baax mosuñu cee jéem a jéem a jubale it mosuñoo soññ ci julli nii koor walla nii ak mbaax moo tax xamuñ ko woon sax nag ndax ca lam ñu orienté woon ca lañ nekkoon nga xam ne gàcce mënta weesu loolu <clears throat> gàcce mënta weesu loolu luqumaan ne doom ji nag maa ngi lay dénk julli nañ koy taxawal moom julli yemul ci ne ko maa ngi lay dénk julli rekk waaye aqimi salaa la ko wax waxtu wi bu jotee li nga jàppoon ne ko fa yal bandig te nga dem julli ci bu dee góor la defee ko ca jàkk ja moo gën fu ko man di defee bu dee góor la waxtuy julli farata yi defe ko ca jàkka ja mooy li gën ci moom ak fépp fu ko mën a defee foofaa ko gën waaye bi mu la diggalee nee na taxawal julli na nga góor góorgóorlu ba xam ni ñuy jullee na nga jàng farata yi na nga jàng sunna yi na nga jàng ngëneel yi na nga jàng nan lañ koy rafetale waaye nanga xam ne rendez booy am sa diggante ak sa borom subhaanahu wa taala suñ borom subhaanahu wa taala lim farataal ci kaw suuf lépp mbokk yi dafa yónnee ñu wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yónnee ñu wax ko yonent bi am lu dox seen diggante ñëw wax ko ko ba mu des julli julli yàlla nga ko joxe yonent bi ci asamaan ya ci lu amul benn intermédiaire seen diggante amut bilaa waasita bayna allah wa bayna mustafa sallallahu alayhi wa sallam fadlan an kawniha ibaada suñ borom subhaanahu wa bi mu bëggee jox yonent bi julli da ko woolu ci waxin mu dem ba sidratul taxa ak yee ca topp suñ borom ne ko yokk julli mu andil ñu moo tax amul ngànt ci nit ki ne bàyyi naa ko nangam nangam moo gën a néew ay ngànt par rapport ak yeneen jaamu yàlla yi ci def bu nit ki xasee bokk ci diine ji wax kàddu yi ko ciy boole gëm ko asaka bu ko mënut wàcc na ko bu amut alal wàcc na ko alal jum moom mu mat ab bi ñu wax mu denc ko at xayma ko génne ko bu feebaree koor gi wàcc na ko bu tukkee koor gi wàcc na ko bu wéree fay bu jógee ca tukki ba fay bu dee feebar bu dul wér muy joxe mudd ba yooyu yépp jeex julli bu nit ki di tukki ñu ne ko may nañ la nga wàññi ko waaye wàccu la de ci julli bu nit ki mënta toog bu mënta taxaw ñu ne ko taxawal te wéeru mu ne mënumaa taxaw wéeru ñu ne ko toogal mënumaa toog dong ñu ne ko toogal te wéeru mënumaa toog te wéeru ñu ne ko tëddal noo jullee baax na kon julleel ci sam xel nga xam ne dañ koy topp moom ay ngant yi tax ñu ne wàcc na nit ki lu néew la borom bi subhaanahu wa taala farataal ko bëgg ñu di ko taxawe juróomi yoon ci bis bi waaw juróomi yoon luqmaan nag alxakim joxoñ doom ji ne ko maa ngi lay dénk julli alxuraan net li ñu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam soññi ñu ci soññi ñu ci soññi ñu ci julli wax ñu yiw wi nga xam ne moo ci nekk ndax bëgg ñu góorlu ci yiw wu bari mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bu yowmal xiyaamee suñ boroom julli lay njëkk a xool suñ julli yi bu julli yi baaxee lépp baax bu julli yi baaxut nit ki tàmbulee ñàkk sens lool ngir ay jëfam baax mbokk yi li tax rek fonk julli jaadu nga war cee nattu sa bakkan léegi tàmbali koo yar fajar gi nga ne ñokket dem julli ji mooy alxuraan nee na ab naafiq day tàyyeel ci julli xanaa nag bëggoo bokk ci naafiq yi comme xam nga ne am naafiq day tàyyeel ci julli yow xoolal ba xam lu tax ngay tàyyeel ci julli gi lu tax nga tàyyeel bu waxtaan wi neexee ku njëkk a wax nañ julli ji ne ko euh, bu ñu sonal wala nga jàppe ko ne kii moom dafa fimiste <laughs> waaw ma baal am naafiq moom isaa xaamu ila salaati xaamu kusaala waaw moom day tayyeel yaram wi day dis gann waaw lumbu lumbi naafiq yooyu nekk suñ biir deret ji duñ ko rey duñ jóg ne ko jàllal fële ñun dañuy julli ci waaw seytaane ku soof la waaw te man te man te man te yu soofam yooyu nee nañ waxtu wi boo bëggee jóg julli ji dalay day tiim sa nopp bi naan la ah comme da war a xëy côté 9h mën ngaa tëdd ba ci kanam ba boor yi trent boo yeewoo sangu après nga julli en attendant sol yére rek entraîné dem liggéeyi benn la te mu ne la waxtu yaatu na nag ni mu ñemee waaw nga ne kon naa tëdd tuuti. gis nga du la wàcc ba 9 ba ngay xëy di liggéeyi waxtu fajar wi raw la waxtu suba wi raw la yiw wu rëy rëy raw la ci sa dund te yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ñaari rakkay fajar li ci ne ci yiw moo gën àdduna ak li ci biiram yal nañu yàlla musal ci seytaane léeg-léeg mu wax la ko nga forcé ne ko julli dëgg ne ñokket di waaxu fas yéenee julli ji waaw moom saay-saay boobu mu topp la na la jàngal ca kaw nag yow kay comme góorgóorlu nga ba yeewu heure bi nga wax ca kaw ngis tal tàmbulee dugg jëf ji yàqu wala mun la demal ca jàkka ja del nuyoo bañ xam ne ñëw nga nga pare taxaw ci buntu jàkka ji ku ne ne ko gëj naa laa gis ak dangaa gëj si nga góorgóorlu ba defoo loolu mu ànd yow ba bureau ngay wax ni ñi naan leen man di daanaka démb damaa guddee tëdd booleeg bi ma yeewoo julli ji fajar ba ñëw nga xam ne seytaane moo naan la wanal nit ñi ne leen yow ab jullikatu fajar nga ak mën a yàq ay jëf moo tax taxawal ci jëf ji ba def ko waaye taxawal nag ki xeex moom ba nëbb ko taxawal ba xeex ak moom ba sa jëf ji na doon koo xamante ne du ko mën a yàq mhm. seytaane lu man dana ko defal jax-jaxal ki nga xam ne day julli bu kàbbaree rek mu commencé koo jax-jaxal waaw commencé koo jax-jaxal waaye bu mu la tax a bàyyi kàbbaral rek booy julli di xalaat jullil waaw booy julli problème àdduna yi ñëw sa bopp bi jullil tey muslu ci seytaane tey jéggulu sa borom subhaanahu wa taala te loo man ca mbooloo ma nga di ko ca defi ndax bu ca yàlla nangulee kenn nanguwaale li nga xam ne mooy say jaamu yàlla bis bu ñu ubbi woon bunt ci waxtaane lu jëm ci ngëneelul julli ay njariñam danañ gis ne bunt bu yaatu la ndax njariñ yi muy def ci bakkanu doomu aadama ci yar ko ci sellal ko laabal ko njariñ yi muy def ci yaramu doomu aadama njariñ li muy def ci société bi ci wàllu social daje gi ñu daje lam ñu mën a jural moo tax luqmaan joxoñ ko doom ji mu nekk joxoñ bu rëy jàngal ñu nag ki ndénkaane boobu ndénkaane bu yaatu mooy wàllu yar waaw wàllu yar ku yor njaboot danga leen di yar yar baax na lool yar sa njaboot nag la ci gën a yomb boo bëggee mu yomb mooy fexeel sa njaboot gi jubóog borom bi subxanahu wa taala waaw fexeel ba seen digganteeg borom bi ratax waaw nañu juboo buñ jubook borom bi subhaanahu wa taala rek ñu jubook yow ak lépp lu ci aju day yomb ñu jub ci li nga bëgg ñu jub ci it day yomb moo tax luxmaan taxawee taxaw boobu jàngal ñu ko waaw taxawal jaamu yàlla topp yàlla dañ ciy yar xale balaa màgg balaa balaa kàllafe muy diis ci moom dañ ko ci yar am na koo xam ne fi ne loo ko jàppeeku sàggan sàggan sàggan waxtu julli moom ñemewu koo faat day jóg julli ji ndax liñ ko ci nàmpatal ca ba muy door moo tax liñ ko ci nàmpatal yar ko ci ba muy xale mu màggee ko moo tax loolu moom bokkul ci li muy sàggane am na koo xamante ne li muy sàggan sàggan sàggan benn cër ci aw yaramam feeñ fasu ko yéenee maanaam li muy sol moom bul bul bul dof dof lu mukk ba gis comportement ba tax nga bëgg koo yàpp wala nga bëgg koo xuus jàll keroog la lay delloo delloowaat sa place ndax dañ ko caa yar moo tax yarin wala ba muy gone la ak nag luñ ko jàppee-jàppee euh, ak lu ko jamono indil indil ci yu yees ak nu mën di demee waxtu wañ ko waree yar bañ ko yaree dafa def jeexital ci moom moo tax man doom ji muy waxal di gone nekk ci kanamam mu dénk ko julli loolu mooy mu tàmbali koo orienté ci yar dañuy ko xam ne kon dañoo war di orienté suñu njaboot ci yar di leen ci aadawul di leen ci tàggat waaw di leen ko miinal ñu am jikko yu baax yooyu waaw di am jikko yu baax yooyu fexe ba naan sa doom ji tuub di ko tere saaga waaw di ko tere saaga di tere sa doom ji wax lu du dëgg kon doo ko kon doo ko ci pousser ci mu di ko wax di tere sa doom ji euh, fausser rendez <laughs> bañ koo naxee loo narut loolu yépp nag la la ciy yóbbu mooy nga mën koo digal li nga xam ne mooy ak jaamu yàlla moo tax ci ndénkaanem ñeenteel bi ci ndénkaane luqmaan alxakim mu wax doom ji ne ko yaa bu nay aqimis salaa ndaw baat bu rëy del taxawal julli luy del taxawal julli mooy gis nga ki taxaw ak borom bi ne ko alhamdulilahi rabbil alamin wax na ko lu rëy arrahman rahim ñëw gën koo rëy maaliki yawmi diin ñëw gënati koo rëy ndax mooy dangaa wax yàlla ne ko yow rek yaay buur loolu rek lay tekki ci gàttal kon koy jaamooti ku yàlla koo war a tegati say bët mu fees ko dell dell dell ku dul moom nga tourné ne ko yàlla iyaaka naabudu ñun yow rek la ñuy jaamu waxoo ko iyaaka aabudu de yàlla man yow rek laay jaamu te bu doon leneen dañ naan la déet waxal nag na la sa bopp doy waaye suñ borom nee na garab yi ñu ngi may sàbbal kon ñu ngi may jaamu ngelaw li mi ngi may sàbbal jinne yi am naa ci sëq ak jóor bu may sàbbal biir géej gi la nekk di ma sàbbaal kenn xamul nu mu toll yàlla ne la yóbbaaleel ñooñu nag ak loo jàpp-jàpp nag dangaa war a wax lu wóor iyaaka naabudu waaw yàlla moom mooy ki nga xam ne moom lañ war a jaamu al mooy ak déggal déggal mooy yàlla ñun yow lañ déggal raw nañ ak buum rug ko ci suñ baat mbokk yi loolu bu ñuy julli léegi lañ koy wax yàlla léegi nag bi nga ko waxee bi nga ne iyaaka naabudu neel tekk laaj sa bopp ndax li ma wax dëgg la déet maa wax yàlla dong lay jàmm léegi ak lan ak lan lan laa defaat kilifa lu dul yàlla waaw kilifa ak nag laa wax kilifa ak jaamu parce que suñu borom moo digle ñu am kilifa waaye kilifa jàmm kan lay jaamu ku dul yàlla bokkaale lan ak lan ak lan laa doxale sama diggante sama borom ba jàpp ne dogon kon ak ñoom nangam nangam nangam ba tax yàlla nekkatut lan ak lan ak lan laaj laaj laaj bi borom bi subxanahu wa taala dana la dimbali moo tax julli simpulut ku julli ba sëlmal boo nee asalaamaaleykum keneen nit nga war a doon moo tax sax nga asalaamaaleykum ndax bi nga kàbbaree demoon nga bi nga kàbbaree demoon nga bi nga nee asalaamaaleykum ñibbisi nga <laughs> ñibbisi nga kon keneen nga war a doon mu war a def ay jeexital ci yow tanha anil fahshaa'i wal munkar waaw ñëw nag di la nettoyer di la faj di la wéral loolu mooy njariñ li nga xam ne moo ci am yal nañ ko yàlla boole defal dénkaane luqmaan ci doomam ji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 mi yor jàmm yàlla nañ ko boole defal ñaan ko mu sàmm ko te sàmm ñu ñaan ko it mu defal ñu jàmmi àdduna defal ñu suturas àllaaxira seen mbokk Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di Al Misbah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.